Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf wàllu politique fës lool ci xëtu yéene kaay yi réew mi quotidien xëy ci taxawaayub Déthié Fall mi nga xamante ne daal dinay beddeeku génn opposition bi mu mel ni dogal gi mu jël cool yi topp na ko waaye njiital PRP dëggal na ni daal génn na coalition bi nga xamante ne moom mooy sàmm sa kàddu te ñu boole woon ko ci liste ngir élection législative yi fas yéene ànd ak ñi nga xamante ne ñooy waa PASTEF yéene kaay groupe Rewmi Network bi di fàttali ni kon moom Déthié Fall ci boppam taalibe Idrissa Seck la woon waaye ndaxam li mu def baax na ci moom ci wàllu politique muy laaj bu muy samp mu mel ni laaj bi Walf Quotidien tontu na ko ndax nee na Déthié Fall mi bàyyi sàmm sa kàddu ngir fa mel na ni ku dugg ci mbalka bi ba noppi suñu naataango yi dénk kàddu professeur Moussa Diaw di jàngalekat ak gëstu ci wàllu politique professeur bi jàpp ni Déthié Fall ci boppam daa mel ni xamagul rek muy taxaw te lii baaxul ci moom xamante ne ñoom ñooy àndandorom waaye moom Déthié Fall ci la témoin yéene kaay ma ngay indi ay leerlu ci lan moo waral mu fekki Pastef ci élection législative yi li waral dogal bi ngir fekki Ousmane Sonko Vox Populi mu ngi koy nettali ndax moom njiital PRP ci yéene kaay bi mu ngay xamale ni bu weesoo sax ndaje bi nga xamante ne sekk na ko Ousmane Sonko dogal bi ci boppam waroon na ko mën a jël moom numéro 2 bu réew mi ba woon ne kon xelam moo mënut a nangu mu walbatiku di jàmmarloog waa Pastef te ay ci ginnaaw ñoom ñoo bokkoon benn xeex tamit benn mbëbët mu yokk ci nag li mu génn ci coalition sàmm sa kàddu mooy tamit ngir féexal leen moom Déthié Fall dogal bi nga xamante ne jël na ko ngir fekki fa yor-yor bi mu ngi ciy jàngat ni ab tànneef la bi nga xamante ne xel mën na ko nangu waaye tamit dafa ànd rek ak cohérence ndax li mu yàgg woote li yam ba am laas yéenekaay mu ngi ñuy xamal ni Pastef moom jamono ji mu ngay roppi dëgg ci opposition bi rawatina ci parti Macky Sall ndax lu mooy Déthié Fall mi nga xamante ne bàyyi na sàmm sa kàddu maire bu Ross di Fally Seck moom tamit nee na dañuy voté Pastef beneen maire bu Njanaan moom fekki na tamit Pastef Abdoulaye Sali Sall di maire bu Namaji nee na tamit Sonko lay votel ba ci sax maire bu Tambacounda di Papa Banda mi nga xamante ne nee na day fekki Pastef Direct News gis ni fa yi daal ay xeetu transhumance ak weddi sa bopp la ñu gis ci géew politique gi ndax ñëpp a ngi bëgg a fekki Pastef lii nag duggulat ci géew politique bu Sénégal bu ñu sukkandekoo ci Sud Quotidien mii di kat gis ni xamante ne ñoom ñoo fi nekk ennemi public lu ko dalee ci maître Abdoulaye Wade mi nga xamante ne taxoon na ba ñu duppee ko Njomboor Idrissa Seck mi nga xamante ne dafa doon soppi xar kanam saa yu ko neexee ba ci Djiboka mi nga xamante ne da doon dem ak dikk yéeni kaay groupe Sud Communication bi mu ngi ñuy xamal ni kon homme politique yu Sénégal daal jafe na nga gis ci ñoom li nga xamante ne moom mooy constance maanaam dëggu ci li nga xamante ne mooy seen yoon kenn ci homme politique baax Barthélémy Diaz fës ci xët bu njëkk le quotidien ci waxtaan wi mu sekk ak suñu naataango yi moom maire bu Ndakaaru Ndakaaru daanaka li mu yàkkul Ousmane Sonko ak ñi mu àndal daf ko fàtte doomu Jean Paul Dias bi jàpp ni sénégalais yi ñoo ngay xam jamono ji ni kon ñi fi nekk dañ leen doon nax ba ci sax lu jëm ci wàllub xëyub ndaw ñi Bart gis ni Bougane Gueye otage politique la jamono ji ci jamono yi ñuy waajal élection législative réew mi quotidien du ñu xamal ni jàmm ak njëriñ bu Amadou Ba jël na dogal ngir rocci listam ci biir Ndakaaru li ko waral nag bokk na ci gën a dooleel intercoalition sa kàddu ak takku wàllu combat boobu ci diwaanub ndakaaru muy ab ngir wër ndomb pouvoir bi ci élection législative yi di ñëw ñuy laam-laamee débat diggante Ousmane Sonko ak Ba les échos duñu xamal ni kon jamono ji noppi nañu ngir ñu daal di koy amal école d'art oratoire bi nga xamante ne noppi na ngir daal di leen dalal fësal na sax li nga xamante ne nës na ko ni programme ci waxtu wi ak ni nga xamante ne moom lañ koy diffuser ba ci sax taskatu xibaar yi nga xamante ñoo ko war a animer candidat bu nekk war naa indi fukk ak ñaar ci ay taskatu xibaar ñetteel ba nag Synpics ci boppam moo koy tànn mu war a nekk modérateur bi suñu naataango dañuy xamal ni Ousmane Sonko daal proposé na altine wala talaata gi ñu dëgmal li des nag mooy Amadou Ba daa di koy dëggal ngir jàkkaarloo boobe mën a antu Karim Wade ak Macky Sall ñi fas yéene jàkkaarloo ak nguur gi enquête yéeni kaay mu ngi ñuy xamal ni ci campagne bi daal dina am lu ci taggatémbe ndaxte ñoom ñi dafa mel ni noppeeguñu ngir dëkk ci réew mi ba tax seen ñàkk teew yéeni bi mu ngi ñuy xamal ni dina am lu mu soppar ñi ci campagne électorale bi ci boppam ndax enjeu politique bi ci boppam la ñuy xoolaat Ousmane Sonko nag mel ni jamono ji ku leen raw bokk na ci mandarga gi giga meeting bi nga xamante ne def na ko ca jam ñaajo ci l'observateur tey xëy nañu ci wàllub koppar ak monnaie unique bu Sénégal di éco nga xamante ne ngir ñu yàgg ca du yomb benn yoon bokk na ci li ko waral taxawaay bi nga xamante ne njiitu réew mu Côte d'Ivoire Alassane Ouattara am na ko donte porte-parole gouvernement bi ci boppam indi na ci tontu jàngatu professeur Cheikh Tidiane Ndiaye ci biir yéenekaay bi ci biir Walf Quotidien ñu ngi ñuy xamal ni Bakel ak Kidira jamono ji ñu ngay mel ni ñuy génnee seen bopp ci ndox mi ci wàllub inondation bi nga xamante ne wàññeeku na fa waaye nag ci Matam yéene kaa bi ñu xamal ni yëf yi des na looloo tax ci biir Le Soleil mi àddu ci ponk boobee tamit njiitu réew mi ci boppam dafa fas yéene wëyal mobiliser gouvernement am ngir xeex inondation yi waaye tamit taxaw askan wi dëkkee ci diwaan yooye démb la ko soñ nguuram ci ndajeb conseil des ministres ci ndaje bi amoon diggante Brest ak Leverkusen ci Ligue des champions démb Rewmi Sport dañu xamal ni kon club bi waneeti na boppam ñuul waaye li ci ñuul mooy doomu sénégalais bi di Abdallah Sima bi nga xamante ne jeexalul jongante bi ndax dafa mujj am ab gaañu-gaañu jongante beneen bu ñuy xaar ci beach soccer diggante Sénégal ak Égypte record yéeni kaay du ñu xamal ni tey ji lay doon mu nekk demi-finale bi nga xamante ne ñu ngi ciy xaaraat suñu gayndey bu baax a baax ndax am daañu amaat seen qualification ngir final coupe d'Afrique bi lee jàngeen jëf Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak